ñu ciy dalal ay ndaanaan ak ay porteur de voix ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàll wi tey ñu toog ak ak buur géwél ku ko xam-xam ko ci ci ci culture ku ko xam-xam ko ci sport aussi euh, tey ñu fas yéene waxtaan ak moom euh, balaa ñuy xuus ci waxtaan bi buur dañ lay bàyyi nga nuyoo ak ñi lay suivre jërëjëf euh, idi xanaa dañuy sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wassalaam di gërëm suñuy wayjur di ñaanal suñu wayjur wu jigéen fa mu tëdd yàlla na ko fa yërmande suñu borom fekk moom ak kumpa fekk ak ko fekk di ñaanal suñu wayjuru góor yàlla bàyyi ko fi moom ak njabootam bàyyi fi képp ku ñu bokkal meen walla ñu bekk ak yow géeño di ñaanal suñu njaboot soxna yi doom waaye di ziar ak ndokkeel ak ñaanal suñu bunt Cheikhul Khadim di Mawlana Cheikh Ibrahim ibn Serigne Mbacke Madina di ko ñaanal sama borom defal ko ridan barakatan wa rahmatan fi barakat Cheikhul Khadim waaye di ñaanal xalifa baayam bi nga xam ne tey moo toog toogaayu sëriñ Mbacke Madina di seen Cheikh Bambaali yéen bu dis bi nga xam ne kuréel borom àttanu ko ñu ngi ñaan yàlla ci mbaaxam yàlla na ko borom taawule di jaar Cheikh Amadou Mokhtar moom mi nga xam ne tey moo toog toogaayu Mouhamadul Moustapha al Khalifa waaye di ndokkeel ak ziar al Khalifatul Amr lii tarixatul Muridiya Cheikh Mouhamadul Mountakha <clears throat> ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir di ko ñaanal yàlla. taxawaay bu rafet bii mu am ci réew mi am ko ci yoon wi yàlla na ko sunu boroom jàppale ba lépp lu mu bëgg ci réew mi ci jàmm wala bëgg ko mu yokkute ci yoon wi yàlla na ko sama borom jàppale ca na ma ko doon waxee rek naan illaahi kalimatullahi al-ulya yan bi du laal suuf bay laayum bi diini mm-hmm. kon moom it ñu ngi koy ñaanal di ndokkeel su rafaay ci réew mi yëpp bàyyiwuñ kenn idi di la nuyu mm-hmm. di nuyu sa caméraman di nuyu aussi borom kër gi Soxna Aida mm-hmm. di nuyu képp ku ñu seetaan di la wax idi bismillah waaw d' Bour fi ñuy tàmbalee rek ñu gis euh, seen say confrère euh, waa Walfadjri hmm. ñu gis suspension bi nga xam te ne nii def nañ leen ko loolu noonu sa analyse en tant que président jeune reporter euh, hmm. lan lay doon xam nga bu fekkee dañuy delluwaat ci histoire mhm. bras de fer entre le groupe Walfadjri ak état yàgg na ça ne date pas d' aujourd'hui effectivement avant muy nekk télé sax bi mu nekk ak rajo gis nañ ci vers les années deux mille mhm. diggante Chahid Bassid Lamine Niass président Abdou ba ne Ablaye Wade di yéegee même problème yooyu. ba tey ni nguur gi yéegee même problème yooyu xëj na euh, wolof daan nettali xuloo xuloo la. Mhm. Euh, li ñuy ñaan rek mooy ñaan njekk rek la ñu man mooy ndax état moo fi nekk <laughs> te état moom état rek la. Mhm. donc li ñu mën rek mooy ñaan la président Babacar Diagne ñaan ki nga xamante ne mooy le ministre de la communication ñu yëkkati sanction yooyu parce que. du Cheikh Niass lay impacté. Mhm. Cheikh ñas macha allah baayam bàyyi na fi patrimoine bu mën a dundee moom ak ak ak ak ak ay rakkam waaye am na ay boroom kër yoo xam ne tey ci groupe fajir la ñu yaakaar seen añ fa la ñu yaakaar seen reer fa la yaakaar seen ndekki mhm. seen i jàng doom foofu lañ koy fay surtout ak tabaski bii di ñëw. Mhm. nga xam ni tey boroom kër gu ci nekk am na loo tal euh, ñoom tamit. Euh, xëj na jàpp nañ ni que ñoom ñooy la voix des sans voix. Mhm. Euh, am nañ ci droit mën nañu continuer aussi leur combat. Mhm. waaye tamit ñu def ko ñoom tamit dans les règles de aussi. Mhm. ndax ku ne xam ne ni réew mi actuellement mu ngi ci benn situation bu tendue donc euh, dafay am loo xam ni ni ma koy waxee site internet yi rek laa koy waxee télé yi. le rôle d'un support médiatique c'est d'informer juste et vrai. mooy c'est donner l'information à sa juste valeur. donc waruloo wane info. mu mel ni dafa da da nga contre nguur comme waruloo wane info mu mel ni que da ngay jàppale nguur. Mhm. loolu tamit lu jar a bàyyi xel na te defe naa ni euh, nitu média yi seen yëngu ci côté boobu des na. Mhm. boo xoolee ñun li ñuy ñaxtu. Mhm. moo ëpp foofu que li ñuy def suñuy suñuy devoir. maanaam impartialité bi dafa des. voilà te balaa ngay réclamer aussi ay droit dafay fekk nga def say devoir. li may wax ni du fii laa ko njëkkee wax bu fekkee yaa ngi suñu groupe. da ngay dégg souvent damay insisté ci loolu. mooy léeg nga dégg ni toog ci plateau ne journaliste la. wala animateur la wala chroniqueur la. waxee ci anam boo xam ne ci saa si da nga naan noo kii kat opposant la. wala mu wax wax ba yeggal. nga ne yii kii kat nguur gi la faral. te alors que le rôle du journalisme du loolu. tey ñu ngi seetaan télé yi wër àdduna bi. mais da ngay gis ni tey ña fa nekk tey toog fa di analyser wala ñu yëngu journalisme dañuy joxe xibaar bi ci ni mu ñëwee suñ leen ci laajee seen xalaat nag ñu joxe ko donc bu ñu dugg ci dénoncer leen d'accord dénoncer bokk na ci sunu ci sunu rôle. Mm-hmm. mais dénoncer aussi lii dëgg. Mm-hmm. bañ a bañ bañ a wu ci loolu lu ñu tubaab di tuddee intox. Mm-hmm. te jamono bi ñu toll. intox bi moo gën a bari les vraies informations. Mhm. donc su fekkee ne que tey dara dal na tey ci ku ñu bokkul mille bi dañu koy ñaanal njëkk. Mhm. waaye bu ñu waree wax dëgg tamit aussi dañu koy dañu koy wax. d'accord pour que ñun tey ñu gën a xam rôle yi lan la ak lan moo war a doon taxawaay bi. d'accord mais tamit day am loo xam ne bu fekkee da koy wane aussi état li muy njëkk gis mooy tey. daaw leen fële mu ngay tàkk comme ni ko ñoom idi di defee. Mhm. daaw leen fee saa suuf saa brûle. daaw leen lakk nañu buntu Pikine daaw leen taal nañu croisement Cambérène yooyu pour man c'est pas des infos. Mhm. il faut qu'on dise la vérité. Mhm. donc waruñu ñun mën a contribuer ci li yaatal loolu. te idi dem na ba ñun site internet yi sax laa ci gën a ciblé. dem na ba ñooñu tey nekk bitim réew ñu tuddee leen ay activistes. seeni waxte tey ñun ñoo koy ñun ñoo koy jokkale. Mhm. te boo seetee wax ji ba ci biir biir biir dara lu am njëriñ amu ci. Mhm. mooy diw tëdd naag diw diw nangam taanu ndeyam ak diw dem leen génn leen na fépp tàkk. koj leen péage bi taal leen dem leen kër diw lakk leen ko. Mhm. jël leen ay cocktail molotov journaliste bu leen jege ngeen sànni ko ko. est-ce que yooyu c'est des infos. c'est pas des infos. te alors que nous ñu ngi koy contribuer di ko yaatal pour lan bëgg am loo xamante ne AdSense fay nañu ko weer bu dee. Mhm. donc loolu euh, nguur am na ci par responsabilité mais ñun tamit am nañ ci part responsabilité bu rëy rëy rëy rëy mooy que ñi nekk ci site internet yi di yëngu xëy na lañu waroon dundee amatuñ ko wala leen daan dundal ñenn ñi lay dundal ñu ci des xiif ñenn ñooñu dafay dem ba poussé leen ba lépp lépp luñ ko mën a amee rek dañu koy def te dinañ ko amee ci façon boo xam ni. ci façon boo xam ne bu ñu matulee ci lii taal réew mi lay doon. damay bañ ñun site internet dañuy dundee direct. mooy xaalis boo xam ne dang koy am ci kaw direct ju tuur. mooy rey nañu diw. cam nañu diw fële nga di wane des images yoo xam ne amul bopp amul genn jëmale wuñu fenn. Mhm. donc en grosso modo Cheikh ñu ngi koy massawu. a ña nekk ca kër ga. Mhm. ndax kër ga lañu am kër ga mooy seen sutura kër ga la ñu xam le président Macky Sall ne ruus tey la Lamine Niass bi nga xam ne tey nekkoon na fi nekk un véritable combattant. Mhm. des peuples sénégalais. effectivement bu yàgg contribuer ci cause du peuple sénégalais. Mhm. ki fi nekk tey le journalisme di métier xamu ko sax. patrimoine bu fi bàyyi bàyyi la mu war ko sàmm te gëm ni ko war na ko mën a sàmm donc su fekkee dafa juum. nañ ko envoyé notification avertir ko bu fekkee tëna am na yeneen voies yu fi nekk Ahmed Khalifa Niass magu baayam la nañu ko woo ne ko ah, waxal ak kat Cheikh xëy am loo xam ne mu ngi jàll ci télé bi te amaana kat day taal réew mi. Mm-hmm. wala day yokk ci li koy taal su mënee nangam su mënee nangam su mënee nangam maanaam parce que réew mi li ñu manqué mooy waxtaanatuñu. Mm-hmm. te réew buñ demee ba waxtaanatuñu nag y a problème. bu ne dañu dem ba ku nekk da ngay fajal sa bopp. Hmm. yaa problème man keroog biñ ne euh, dialogue politique dialogue am na dialogue national dama ne du dialogue national. Hmm. dialogue politique la. parce que ñi ci gën a rëy làmmiñ wala ñi seen i wax gën a jóg ay politiciens lañ. dialogue bi tey ñun askan wi koy seetaan li ñu jàpp mooy li mu war a régler à quatre vingt dix pour cent mooy c'est des choses politiques. Hmm. mais est ce que politiciens rek ñoo nekk ci réew mi. loolu la manqué tey réew mi. ndaw faaleetul mag mag yërëmatul ndaw jigéen joxatul cër góor góor yërëmatul jigéen kilifa diine yi faaleetuñu leen kilifa aada yi lijjanteetuñu leen ku ci nekk dangay dox sa doxalinu bopp ci comme nu mu la neexee Sénégal yaa léegi dafa dem ba jungle la. Mhm. te bu ñu deltuwaatul gannaaw ndax askan wu ne ak leen jig ñu li ñu jig mooy jàmm en commençant par nos gouvernants. Mhm. jàmm moo jik réew mi damay wax chaque jour ni jàmm ku musut jàmm ku xamul lu muy jar da nga koo ñàkkul da koo ñàkk waaye gis nga bés boo ñàkkee jàmm ci ngay xam njëgal jàmm lan lay jar le président Macky Sall na gën a yërëmee d'accord il est le grand de la stabilité et de la paix de cette société la dëgg la war na doxal yoon ak saytu ak sàmm kemtulaay kàttanam ci réew mi mën a am jàmm waaye moom it na yërëmee moom moo taxaw ci position wu ñu ne ko dil yërëme mhm. parce que tey moom moo yor doole ci moom moo mën a yërëme président moo mën a gracier moo mën a amnistier moo mën a jéggale parce que pouvoir boobu la ko yàlla jox ci askan. kon tey bu desoon ci Macky Sall mën nañ ne kon coow lii yëpp du am. kon kon coow lu bëri mën na bañ a am sax idi xëj na des fois sa se comprend coow lii am nii responsabilité partagée la idi c'est-à-dire. jëlal tey li am nii passé mais c'était du grand banditisme du vagabondage ay toj ay taal ay góor ay nit. d'accord ci ay violé ay jigéen yow d'accord nga ci loolu amul mbindeef bu ci mun d'accord dama wax keroog jour projet Ousmane Sonko Adji Sarr nee nañ le combat de Ousmane Sonko est une bataille politique ça doit se gagner dans un terrain mais boobu li may wax ñu bëri duñ ko comprendre par que Ousmane Sonko déjà am na benn longueur d'avance sur l'opposition sénégalaise mooy moom mujjee juddu il n'a jamais été ministre benn yoon la ma sa nekk député à part son mandat de maire bu mujj bi il n'a été qu'un inspecteur des des impôts et de domaine bu jugee ba yàlla teg ko ci ko ñi kujje gi laaj yàlla la coobare woo mhm. loolu nag day baax état jël ko au sérieux xam ni kii nii kat du ko jékki-jékki rek nii déedéet yàlla moo ko yëkkati te yëkkati bi ko yàlla yëkkati am na lu tax. Mhm. li tax nag yàlla sunu borom moo ko xam mais bu fekkee ni li am nii xale yi dañ jàpp ni que noonu lañ ko war a xeexalee ñu ngi koy tooñ moom te ñu ngi koy yàqal parce que pour man Ousmane Sonko ne doit pas appeler à la résurrection. Mhm. il ne devra pas la faire parce qu'il a un avenir politique. mais Bour est-ce que du combat bi noonu la ko war a mënee parce que boo gisee ñu bëri ñuy génn. génnuñ pour Ousmane Sonko mais dañu génn pour injustice. mais est que génn ci injustice ba def injustice noonu la war a demee est-ce que nit war na mën a am lu ko naqari ñëw fekk loo xam ne idi yow man ak ñoom yaa ñoo ci yem ñu sot ci essence ne ko jëppi taal est-ce que xeex injustice mooy dem ci kaar yi nga xamante ne que ñu ñëpp ci yem taal ko. es ce que injustice mooy fekk ay magasin jàmbur yoo xam ne seen yoon nekku ci ñu dajji ko toj ko jël la fa nekk taal magasin ba es ce que xeex injustice mooy fekk ay jigéen ñi toog ci biir université tëddee leen sàkku leen viol leen dem sa est-ce que injustice mooy dem ba université dugg fac lettre taal document ya fa nekkoon yëpp est-ce que loolu mooy loolu daf ñuy yóbbu ci dérive. Mhm. te ci dérive ba ñuy ba ñuy yóbbu bés bu amee wala mu takk Ousmane Sonko. Macky Sall ak Massamba ak ma Demba ñëpp ñooy bokk gaañu ca. d'accord du dëgg. d'accord donc nañu am beneen en 2012 ñun ñëpp on était là. Mhm. Macky Sall bi muy xeex Ablaye Wade ak la Macky 2012 ak ñoom les mouvements Y'en a marre ak yooyu place de l'Indépendance lañ daan dem wala place de l'Obélisque pourtant xeex nañ ceeg Ablaye Wade ba déloger ko au palais. Mhm. naam que y avait quelques dégâts. Mhm. c'est normal mais lii am depuis. Covid bi ak léegi c'est catastrophique. Mhm. c'est inexplicable kenn mënu ko wutal dalil. pour yow lan moo ko waral euh, nguur gi moo injustice bi nguur gi bi di def la wala. waa xam nga wala woote xeex bi nga. xam nga tey boo nee Ousmane Sonko day def injustice ñu la naafeq nga. Mhm. boo nee Sall moo nekk ci injustice ñu ne la nga. Mhm. kon da dem ba un moment wax ci wax ak sénégalais yi. dafay métti. d'accord ci ci foofu laay ñëw buur bu ñu demee bañ a wax dafay métti fi mu toll nii ñan ñoo war a génn wax parce que ñii ñi ngi interpeller influenceurs yi. ku nekk a génn wax war a génn naan naan chef religieux yi. idi ñëpp war a génn wax. képp ko jàpp ko soo waxee sa wax dal fukki nit war ngaa génn wax quel soit le prix wax dafa jot te gis nga balaa ñoo xam ne wax jot na mu mu yéex. Cheikh Mamadou Mountakha mu ngi ciy joué benn rôle bu extraordinaire comme ni ko Cheikh Mamadou maay defee maman Lamine Laye moom Seydi Babacar Laye keroog génn joxe communiqué boo xam ne Cheikh Mamadou Mokhtar moom Seydi Mandione moo ko génn wax. waa Ceneba ñu ngi wax waa jàngu bi monseigneur Benjamin Ndiaye wax na maanaam képp ku jàpp ne ba influenceur dañu war a wax mbëri dañu war a wax Massamba dañu war a wax. d'accord buur ci foofu noonu laay ñëw ñu ñu gis ne euh, mbër yi war a gën wax. Hmm. mais mbër mbër yu bëri fu mu toll nii gis nañ ne. Hmm. dañ see abstenir loolu noonu. waaw pourtant bi leen gars yi tàkkalee ci yoonu pale bi. Mhm. ñoom ñëpp ku ci nekk génn nga wax. justifié wu. Mhm. ba mu jaral leen ñu def conférence de presse. conférence de presse mhm. bien sûr. damay wax chaque jour idi ne la mbër yi yàlla dafa leen may lu mu mayul kenn. mooy ñoom ñooy seul acteur yoo xam ne bu benn mbër génnee. bu dee mbëru koñ la sax gàtt gàtt quatre cent jeunes dinañ ko topp. te lii am ni tey soixante quinze wala quatre vingt pour cent jeunes yi ñoo koy def. te jeunes yooyu jàppal li ci ëpp ci banlieue bi lañ dëkk. te mbër yi quatre vingt quinze pour cent ci ñoom ci banlieue lañ dëkk. pour sûr pourquoi pas que mënuñu di waxtaan ak ndaw ñi benn mot loo laa gis mu def ko fi giri Bordeaux. ki nga xam ne moom mooy euh, rëg-rëg. Modou Lo ci ay circonstances la ko defee waaw la ko defee. Mhm. donc nañu weddee woon cinquante millions yi ca palais nañu génn wax ak askan wi mën nañ ko te je làmb avenir làmb. Mhm. lu jar a bàyyi xel Idi man maa la ko wax. lu jar a xel parce que décortiqué wuñu ñoom li jot a xew ñoom bëri il da ngay dugal benn vidéo mbër léegi boo amee cent commentaires quatre-vingt-quinze commentaires yëpp dañu naan ci mbëri bàyyi nañ leen bàyyi nañ naka la ñu mën a def ñoom ba mën a réconcilier waat seen bopp ñoom ak seeni supporters loolu lu jar a bàyyi xel la donc lan lay signifier mooy que le président Macky Sall si la a un bon bilan ñëpp koy ñëpp koy d'accord mais ndaw ñi bégguñu ci moom. loolu mooy dëgg. d' accord léegi ku ko bëgg aussi. Mhm. da koy wax na que le président de la république ndaw ñi bégguñu ci yow. Mhm. ku ko mag président mag ku ko kal ci bilan doo ko daaneel. parce que ñun ñi ñun ñi fi yàgg fekk Abdou Diouf fekk la fi Abdoulaye fekk la fi da ngay xam ni relever na suñu plateau médical yi ci lu man mhm. infrastructure yi les euh, ma maanaam les routes les plus impraticables yi fi amoon. fexe na ba def fa ay yoon. côté emploi mu ngi def lu mu man côté santé côté loolu donc bu demee ba naw ñu kontaanuñu wala ëpp ci askan yu kontaanuñu dafa war def tekk taxaw. Mm-hmm. bu brandir la sable di la sabre déedéet. Mm-hmm. ñu naan ko faj ko. te es le gardien de la constitution faj ko déedéet. gëmal dóor déedéet ay gëmal dóor d'accord ma. Mm-hmm. na décortiquer ce message la lan moo tax man attends man la président Macky li ma jot a def Sénégal de 2012 à maintenant. Mhm. ci côté bilan. cette jeunesse là wala li ci ëpp ma di ko kontaanuñu naa arriéraat xool lan moo tax kontaanuñu. Mhm. mais bu mu demee fii avec le mhm. di xool attitude du ñenn ñi su fekkee ne que gis na ni que li ëpp ci ndaw ñi Ousmane Sonko lañu ñu àndal. ah bu boobaa nag message bu doy waar la nag. parce que conflit de génération dafay dal moom ñako faloon ak ñi mu ñi mu dajeel nii jamono du ñu benn. ndax ña ko faloon ni ndaw ñi baree tey baree wu ñoon noonu. ces primo votants la booy judd ay 2004 ak ay 2000 ay 2001. léegi mën nañu voter. mën nañu voter léegi. man langage la war a préparer contre jeunes yooyu. te attention Ousmane Sonko booy yooyu ñoo ko bëgg ak la ak les Sénégal de la diaspora mm-hmm. lan moo tax est-ce que politique gu président Macky Sall ndaw ñi ñu ngi ciy gis seen bopp est-ce que politique am tey le le Sénégal de la diaspora ñu ngi ciy gis seen bopp. Mm-hmm. pour man loolu moo nekkoon question d'actualité yi ci moom. may jeexalee mooy euh, sa analyse bi nga joxe woon ci combat Balla Gaye 2 ak ba gars yi sax tiitaree woon ne buur buur nee na Balla Gaye dafa feebar. tey ñu gis euh, Balla Gaye ñëw déposé benn certificat médical loolu noonu loo xamoon la wala wala dafa dafa dafa am analyse boo defoon. Idi man je me mille 2010 ba léegi fu ma génnee wax ci internet dinaa ci gis commentaire bu ne buur vaar dinaa ma ah. maanaam comme ci c'était que li nga jot a wax duñ ko gëstu pour xam li tax nga wax. mais dañuy yàkkamti nga fen ba ñu weer la te am na ñoo xam idi du duñu weeru bay laa mi diini bala ngay dama ko gis combat am contre Bombardier dama bokk ci ñu ko jëli woon Olympique Club xool ko gis ko dans l'œuvre nit ki manqué ci man ñu ñëw contre Bombardier mu demee noonu mu góor góor lu contre Gris Bordeaux tey boo tegoon booy ñaa Eumeu Sène Bombardier Gris Bordeaux yow tey bu ñu doon trie loo bu ñu la doon Balla Gaye ban combat la ci daal moo Gris Bordeaux ngay jëkk jukki mhm. donc jël boobu du woon exploit te de dafa bëri moom lu metti première carton bi ñu bëri dañ ah Balla Gaye jeexal na <coughs> bi ko Gris Bordeaux tóore mu tërëf genn waa gi yaa jeexal na mhm. mu ñëwaat contre Boy Niang contre booy Niang est-ce que Balla bi mu ñëwee bi mu ñëwee léppam ñëw na. cest est-ce que bi mu ñëwee indaalul blessure et set yàlla rek moo xam je di dis booy que Boy Niang ne mérite victoire si. Mm -hmm. mais digganteem ak wér di yàgg na Balla Gaye de digganteem ak wér di yàgg na. donc mënuma comprendre mu jóge ci defit bu amer digganteem ak Boy Niang ki taxawoon ne la dinaa daan sa rakk daan la bàyyam na la yaay mbër yi gën a neex a daan ci làmb yow Balla Gaye de xale bi ñëw def lam waxoon donc il fallait reculer pour mieux sotee dama ne woon bi nga waxee ne combat bi du foofu nga ko tegoon foofu laa ko tegoon état de santé non je savais que ni que ça ne moom personnellement je le sentais quoi en Balla Gaye 2 xam nañ ko. mais est que du problème d'âge no non non non non Balla sax Balla Gaye ay ma seen ñoo ko mag foofu du benn sax ku mën a magee Salif ñaari at Sa Thiès doo mag. Mm-hmm. barke alxuraanu karim Balla moo ay ñoom Modou Lo ay nangam nangam même génération la ñu lay Ama Baldé ah. si. ñii diggante cinq ak mil ñaar la ci dox ñetti at yu manqué tuuti. donc du du mag bala gi demul fenn mais nag làmb boo ci nekkee di champion boo demee ba gis que wér di ñëw na bul jéem a exister virtuellement. te Balla Gaye de loolu moo koy dal des fois dafay exister virtuellement parce que il a l'âme d'un champion mooy dafa jàpp ni wala mu gëm ni. la mu daan def ba tey lay def loolu jikoy gaynde gi mooy na ci moom mais dafa feebar te loolu mooy dëgg dama ne woon bu bëree woon ak Eumeu Sène le 31 juillet il sera humilié baat boobu laa utilisé. Mm-hmm. te billahi boo amoon il sera humilié parce que Eumeu Sène était plus apte plus prêt pour affronter ko boo gisee waa kër Eumeu Sène ne rey seen bopp na combat bi day am parce xam nañ ne que Eumeu est plus prêt. Mm-hmm. donc Balla Gaye 2 ne mérite pas te am yenn sorties yi ci làmb mhm. Balla Gaye 2 est un bijou bu waa làmb war a su fekkee baaxul ñu ne ko baaxul su fekkee jekkul ñu ne ko jekkoo te man buur j'avais tiré la sonnette daal mhm. billahi wallahi taalaay buñ jamono bala 31 Balla Gaye 2 génnewul certificat médical dugal ko ma xàcc ci yoonu Cheikhul Khadim c'était prévisible dama ko dama ko gisoon teguma koon fen mais lu ma sama jàngat may la du ma ni du ma juum ci li may wax de déedéet ndax nit laa te matuma bu ñenn yaakaaree ma vaar suba mën naa fen mooy mën naa wax loo xamante ne que suba mën na bañ a nekk dëgg te bu boobaa it duma ci am gàcce duma ci ruche dama koy jël avec humidité parce que damay damay xam ni que nit laa koo xamante ne que damay wax. te ci samay wax mën naa juum comme mën naa bañ a juum waaye li may jàngat di ko wax li ci ëpp dafay am. parce que dama koy teg ci argument yu bien précis. d'accord léegi ci ci ci ci avenir u Balla Gaye ak Eumeu mhm. seen ñoom ñaar ku ci nekk lan la war a doon fi mu toll nii. waaw xam nga Eumeu Sène. Euh, li mu war a bëriwaat bëri na ah. ñu ngi wax digganteem ak Sa Thiès mais gëmuma ko parce que jàpp ma ni mën na yor avance bala Gaye 2 di bëre ak Sa Thiès avant que muy bëre beneen bi mooy digganteem ak Tapha Tine bu neex la duel bu neex a neex a neex a neex la sax donc war na mën a bëri ak Tapha mais quant à Balla Gaye man fekk un an six mois bala Gaye 2 waratul exister waratul est-ce que du kon lu gars di wax naan war dafa war a bàyyi. est-ce que kon déedéet Balla bu bàyyee làmb cinquante pour cent ci làmb dafay effondré ci jamono bi ñu toll. te li ma la wax mën naa ko argumenté ci angle yu bari Balla Gaye 2 Idi bi ku fi mën a am bésu Balla Gaye 2 ci làmb amul. nee la mooy alias cukkuli mm-hmm. li mu dajalee def ko ci carrière mbër defu ko fi. yàlla moo ko may saf xorom bari bayre mën a bëri ndax doomi Double Less la mais Balla Gaye dee fekk at warul yeewoo sax senegal da bitim réew médecin yi dàq fa ci àdduna bi xool yaramam mm-hmm. ay moniteurs yi dàq entraîné ci ci àdduna bi liggéey loo ko yaram ba su Balla Gaye de ne cëpp aéroport Blaise Diagne bii idi bu waaxu nga xam ne cukkali jekk na loolu laa ko yéene man buur bu ñu ko sooxlu soox sorxo sorxoloo carrière am Balla dafa mérité génn ci làmb avec tout les toutes les honneurs parce que jëf na ko ci làmb te carrière fi mu nii nekkul ci fin de carrière mu ngi ci digg carrière dama ne la bi muy bëree ca veille ba laa woo ko jege ne ko Balla Gaye mi ma gis bu euh, Boy Niang koy daal mm-hmm. mu ne ma nga ni buur li wax garaaw na man sa ma ne ko ba suba keroog ma ñëwee gis Boy Niang ci biir oto bi vidéo bi dem na bay viral ma nga naan Fatma xale bi mënu ma koo xool Fatma xale bi jekk na boobu j'ai vu un Boy Niang boo xam ni je ne croyais que ngoon googu bu ñu bëroon dix fois day daan Balla Gaye dix fois. Mm-hmm. donc na génn ba mu gàddaayee bi mu ñëwee baax na na gàddaayaat. Balla Gaye man buur maa la ni nga gàddaayaat dem liggéey tu le mérites. Mm-hmm. d'accord Balla Gaye 2 mérite de rester. billahi wallahi taala yi Balla Gaye 2 mérite de rester. du ma supporter buy wax déedéet. dama gëm ni que làmb man mooy sama àdduna. Mhm. te Balla Gaye 2 est un ci làmp ci jant la ci làmp ci. na dem liggéey faju ci dellu si waat xaj na ci. xaj na fi ba tey. d'accord hmm. mais Mbour est-ce que yaakaaroon ne tamit certificat médical bi stratégie bu ñu teg la rek pour pour bañ a pour a bëre mais teguñ ko ci état de santé Balla Gaye. yàlla rek dañ koo xool xam ne warul mën a bëre. yàlla yàlla rek moo xam à part xam man nekk ma foon je ne suis pas un médecin. Mhm. donc euh, ja jàpp naa ne boo defee euh, certificat médical bi noppi buñ ñu ñëwee au niveau du CNG dafay am beneen contre expertise. Mhm. mooy médecin CNG bi dafay xoolaat. mbir yi ba xam donc gëmuma loolu et puis Balla Gaye du tapalekat déedéet. parce que dañu dégg coach am Lamine Lamine Golo. wax carrément ne moom yëgul woon ne Balla Gaye dafa feebar. waaw xam nga Balla Gaye man de pour man bu dee rek xam nga nit keroog koo gis ba mu bàkkoo ndar géej da ngay xam ne sànni ba xaw ma nag lu koy metti wax yàlla moo ko xam mhm. gis da ngay xam ne que ça donc bu fekk coach wax loolu d'accord loolu c'est son droit le plus absolu mais ñun li ñu gëm la ñuy wax bi al karim mm-hmm. donc xamuñu Balla Gaye 2 ci tàppale ak yàq bés mm-hmm. ak wut lay ci digganteem mag adversaire parce que jàpp na ni ko ku mu dajal moo la mën moo tax du du du saboté bés du ko yàq donc nag bu fekkee dafa feebar mais nañ ko bàyyi mu dem faju yi Eumeu Sène am na fi combat veillu combat ne dafa euh, biir combat ne dafa dañ ko loq ci bët. Mm-hmm. no àddina noonu la Eumeu Sène mi muy dajal champion la xam na ni Balla Gaye de du du du xam du mbër muy tàppale nag nañu wax di dëgg donc booyee dafa gaañu gëm nañ dafa gaañ. d' accord euh, mbégte ak contentement la ñu amoon tey dalal euh, buur ci suñu émission Fifty People 221 tey sa mot de la fin ci émission bi rek lan lay doon. waaye di xanaa di la di la sant rek ah, di wax ni euh, kàddu yi mën na dëng nit kuy wax la mën naa juum ci li ma bëggoon a wax lépp bu fekkee dafa heurter sensibilité ñenn ñi maa ngi leen ñaan ñu jéggal ma waxuma ko pour far kenn dama gëm ni ko war naa wax mhm. moom rek moo ma tax di wax mhm. nañu ñaan ci réew mi jàmm nañu ñaan ci réew mi jàmm ñi war a doxal dëgg nañu doxal dëgg ñi war a doxal jàmm nañu doxal jàmm bu ñu war a doxal dëgg doxalee dëgg rek ñu war a doxal jàmm bu doxalee jàmm réew mi neex mm-hmm. lii xew suba yàlla sunu borom moom rek moo taxaw jul jalaari wal ikraam ci position wax xam ko mm-hmm. yenn yii sax jaru ko ndax yàlla xam na la muy def suba mën nañu xeex ki fi nekk ba mu jógee fi suba yàlla dénk ñu am faraana ku ko gën a doy waar yàlla rek moo xam donc xeex bi xeex xeex bi nañu sóoraale yàlla ni mooy yahdi liman yashaaw dernier mot bi moom yàlla moom moo ko moom moo ko yoro idi di ndokkeel ñëpp di nuyu borom kër gi di ñaanal ñëpp fépp faay mën a nekk moo xam ngay soppi wala ngay noon buur moom nee naa amul noonu koy noonu da nga ko xamul mm-hmm. waaye boo ko xamoon doo ko noonu en tout cas man noonoo ma kenn meroo ma kenn lu waay wax baax na bëgg naa lu waay defit baax na yàlla ñëpp am jàmm jërë ngeen seen